Busayri mu ngi tagg yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa mu ne wa kanam ka shamsi bu mel ni jant mu diwun daa ji leeral mm-hmm. waaw kanam googu nag mu diwun naat la ci kanam ga mu di diwun baa ji leeral mun ko mu ngi ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sa kanam gi yonent bi mm-hmm. dafa mel ni jant muy jant di leerale noonu lay kanam yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di leerale ak usfirat wuñu nañ maanaam feeñoon nañ mhm. anu ci kanam googu laylatun gudd xarra u gaa ji weex jaaji leer nañ kanam yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi mhm. waaw guddi gu lum lëndëm lëndëm kanam gi mën na koo leeral du sëyri dafa niroog yonent bi ak jant mhm. ndax jant mooy li gën a leer ci liñ kam waaye bu dul loolu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam kay moo gën a leer jant xëy na ñëw gi mu ñëw ci insaaniyatu moo tax lu bëri ci leeram yàlla nëbbuñu ko buñ gisoon leeru yonent bi suñ bëri gumba ndax attanuñ ko ni nga xamee ne leeru jant bii rek mënuñ koo xool leeru yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa na ñu koy xool waaye nag <coughs> yàlla feeñal na ko ci melo doomu aadama benn bis ndey Aïchatu puso mos na ko réer dana ko wax ci sarxa bi mu di ko seet gisut ko mhm. yonent bi ne tëll rek kanam nga leeral néeg ba waa bu mu gis puso ba sallallahu alayhi wa sallam wala nga ne dafa bëgg wax ne mhm. kanamu yonentu gu leer ba mel ni jant mhm. ci la yàlla génnee guddi gu leer googu mooy guddi gu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam juddu maanaa maanaa wax ji mooy anal muhayya naka kanam woo moom al wajum moo di kanam muxya mooy wajhu ke shams daf mel ni jant shabahu niru na ko bi shams jant fii xaayati di yaay ci doyab leeram wa fii xaayati kamaali ak ci doyab matam yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam da niru leeg jant boobu ngir leer gim leer ak mat gim mat wa tasbihu niru la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi shams jant min baabi tasbihi ñu ngi bokk ci buntam niru la leen en lu gën a kawe mm-hmm. bilaa dinaa ci lu gën a suufee mm-hmm. boo ne yonent bi mu ngi mel ne jant mm-hmm. yaa ngi niru leen lu kawe ci lu suufee ndax jant kay leeram lu suufee la ci kanam yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam <coughs> dana wax lu tax mu wax loolu woowu moom saayixun aji dagal la inda al arab yi ci arab yi arab yi dañuy niru leen lu kawe ci lu suufee leen noonu ndax moom sallallahu alayhi wa sallam di diyaay ci leeram diyaaw mooy leer gu ànd tàngoor adwaaw moo gën a leer mm-hmm. wa anwaru moo gën a leerit wa akbaru moo gën a màgg mi ne chams si jant bi kasiiran ci yu bëri leer ak yonent bi moo gën a màgg leer ak jant waxuma nag koo xam ne ni Muhammad ibn Abdullahi rek la xam laa wax <coughs> kooku loolu mën na koo jaaxal waaye ku xam muhammadu rasulullahi da nga xam ne leeram moo gën a leer jant fay na diya shams naka leer ak jant mm. fii raayati saati yi ci doyog yaatoom isa udifat buñ ko laafee ila nuur yi ci leer ak yonent bi mm. wa diya yaag leer ak jalaalam sallallahu alayhi wa ka basqatin mel ni ab taflil rek fil baxri ci géejal muhit ba ji peek baxrul muhit gi nga xam وهم صحيح نتبي وهاي لما ينرى يولي يخمني سن لرن بلير جنتبي ما تمن يقول من يوا ابن الفارد في تاية تاية حكاية لنا تلا عن نفسي تبوم دفنا ابن الفارد مي ما دمن بيجي نادنا يلا ونكو كريم شال جنم boko yàlla woné kërëm ci aljana muy joy muy ne li ma liggéeyal yàlla yëpp bu fekkee li ma yàlla fay man persona ñu ne ko loo bëgg mëna may ma rek ma xol jëm ji ben xoolin waaw ci sam tout rek ñu gis ko moy muñ waaw non la génne àddina ñu xam ne am na càkkutéefam wax na ci taayee hikaayatan na tira nafsi si boom ne wa min mushril al muhiti ka nuqtatin wa min matlain nuuril basiti kalamatin mu ne sama leer gi كنقطة بوك من مشرع البحرين بوك تكل جيج جي أجي تالو المحيط باجي بيك كنقطة جيج جي دفع من لا تقرأت شي سما لير جوجو أو أكم مقام جوجو نيم تالو جيج جي تالو جوجو غخان مي بحر المحيط كم تقرأ لك مل ومن مطلع النور شي فنك لير جا البسيط جي لير رجي كلام عتنا فمن بين جنكو بوك تكلي leer gi nga xam ni moom fenk ci jéeri ji waa albasiitu mooy suuf si rek de leer suuf si ni mu tasaaree ni mu leeree boo ko tëkkaleeg sama leer gi dafa mel ni benn gendeeku xasali woo mu ci maqaamaam maqaamaam lay wax maqaamaam la leeram boo ko tëkkaleeg leeru suuf si mu mel ni benn géndeeku maqaam bi ni mu tàllaloo boo ko tëkkaleeg géeju muxit tàllaloo mu mel ni géej gi mel ni benn toq rek kon nag fa kayfa bii naka la moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam allazi mi nga xam ne laa qiyaas di qiyaas alayhi ci moom naka nga lay ñu wax ci yonent bi nga xam ni moom kenn du ko tëkkale kenn fenal jannatu naka aljana maraatiba nuuriha martabaay leeram ay al martabatu martaba suuf laa bu gën a suufi minaa ci aljana law axrajat buñ génn bu law axrajat bu génn woon xawraaw benn xuuru ay ni asbaamuha euh, baaraamam xataa ba ci asamaan si laat faat koon mu fekkee nuura sam si leer ak jant bala ahli dunia si ñu àddina yëpp aljana ji gën a suufe mooy ji nga xam ne mooy njël benn aljana su fekkoon ne benn xuuru ay ni dafa génne baaraamam rek ba ci asamaan si leeru jant bi fay ndax leeru ràññu boobu moo gën a leer fuuf leeru jant bi wax waxuma jëmmam de baaraam rek bu ko génnoon ci jant bi leeru jant bi fay ci waa àdduna wa hakaza nii la mel al nisbatu saaniya askan ak ñaareel gi ilal jannati ci aljana alati bi nga xam ne moo gën a suufee minaa ci moom de waaw as aljana ak ñaareel ji boo ko boo ko boo ko ji gën a suufee benn xuuru ayni ci aljana ñaareel boobu génnoon baaraamam ci aljana ju njëkk ji rek leer aljana ju njëkk ji fay وهكذا نيل فصاعدا mm-hmm. toppul gën a kawe mm-hmm. ilaa ma ba nga jëm ci la nga xam ne laa ne xayata di doytul waaye la di ko ñeel mm-hmm. aljana ji gën a kawe mu xen lii na xen lii na benn xuur ay ni bu génnoon baaraamam rek firdaw si fay firdaw si mu de aljana juróom ñaareel kon maanaam aljana ju nekk noonu la gën a leeree morom ka waxuma jëmmi aljana de mhm. waaye benn xóoru ay ni ci aljana jooju rek mhm. bu génne woon baaraamam rek aljana ji ko gën a suufee ñooñu aljana eh, eh, jooju seen leer dana fay te ñooñu ñëpp ci yonentu lañ jëlee leer kon kay la yonentu yàlla moo gën a leer mhm. waaw jant foofu elli kooku nag fala Cheikh Tidiane dëkk ak taalibeem ci damaanam yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yal nañu ci yàlla boole waa na asraka aras law ba daa bu feeñoon nuuru leeram la kon mu nekk shams ci jant bi maa waa ak moom waaw kal xindiili mel ni ab sondeel fi wasti shams ci digg jant bi aras bu leeram feeñoon nga tëkkali koog leeru jant bi dafay mel ne ab sondeel boo teg ci digg jant bi xam nga ne sondeel boobu benn leer waaye noonu la jant bi mel aras وفي وسط الظاهرة دافay في ni sondeel si digg njolloor gi njolloor mooy digg bëccëg وقد روي ان يتلن في الخبر تي خباري أن نون من النبي صلى الله عليه وسلم منذ خلق الله ديب با يالا بند يالا سارس كل يوم بس بو نك يوك سادا نك خود الف حلة تكاي جنة تكاي من نور تي لير دنگا واو عرس نتل نك بو يالا بندé ba légui bis mu nek ñi xod ko jinné takay ci leer wo تمام لا يعد ولا يعد جيجي في انواع الحجب شي قيتو آه، كراي ولا بوك لا يعد دنجو كونت موي دارا في انواع الحجب شي قيتو كراي التي يقني فوقو مو نيك سي كوم كراي نيك سي كوم عرس بوك تكري عرس دو دارا وكل هذه الانواع تمبولم يل لير تستمد دفاي تب من نوري شي لير يونتبي صلى الله عليه وسلم تلاري يب شيلن تبلين جلالير كن كي بلا وحين لا ينتي على محمد صلى الله عليه وسلم وقنا لير جنتي بنا من كوغم ومم ينتي بعلم فيد ومويل ببل على جميع تنبول من يبي أنوار جاي لير وإذا أضيفت بن كل عفينك إلى نوره تم تلارم صلى الله عليه وسلم لير جميع خم ينتو وجه لير بوك تكل لير ينتي بي كان لير قول فين كلمات كم بين جندكو فلان تبر دير أسكن بينه دجنتي وبين الشمس دجنتي جنت في دياي تلير ونوري تلير جلال ونورك لير جمال ينتي بي صلى الله عليه وسلم لير كي tey xam nga ne du leer jant bi du dara ci kanamam <clears throat> lakin tashbi al ala waaye nirule lu kawe bi adna ci lu gën a suufee saa yoxun lu dagal ind al arabi fa arab xaala woona subhanahu yàlla nuuru samawaati mooy leer gi leeral asamaani juróom-ñaar wala suufi juróom loolu firi ko yombut mm-hmm. masalu nuuri misaalu leeram ka miskaatin comme mm-hmm. ab waaw lamp boo xam ne fiyaa nekk na si waaw misbaaxun waaw ak mees dégg nga <coughs> wala ka misbaatin comme ab bitel fiyaa nekk na ci misbaaxun ak lamp lim bëgg a wax mooy yàlla niru na niru ak leeru asamaan waaye xam nga ne yàlla moo gën a kawe leeru asamaan ak suuf fay na nuuru naka leeram wa taala niru na leeram kon comme leeru lamp boobu moom yàlla masalu nuuri ka mishkaatin comme leeru euh, biteel boo xam ne dafa am mm-hmm. euh, lamp bu nekk ci biir mm-hmm. waaw wal leer leeru yàlla na xam ngeen ni moo gën a kawe mm-hmm. ak lamp feneen nuuru naka leeram subhaanahu tudd ma seen wa taala kawe na laa xayata di tag doyaloo di ko mu niru ko bil mishkaat yi waaw ci lamp weer maa ànd na mishkaat ànd boobu fii xayati donc fii mu ngi ci doyab lottu waaye na leneen lu mu ci bëgg a jàngee fa li daali moo tax qul naa ñu wax ne inna tasbihu naka niru la yonent bi bi shams si jant bi min baabi darbil masali mu ngi bokk ci buntu joxe léeb bil adnaa ci lu gën a suufe dégg nga comme ni ko yàlla defee rek ci alquran joxel misaal ci lu gën a suufe ndax amul lu toll ni moom kon ci lu gën a suufe rek la mën a jox nit ñi misaal ci boppam waaye dan ba tey nazaru nazaru am na beneen setantal aaxaru beneen moy la ma kan bam mu asam du jant bi mom moom ma adrakat mo doob la nga xamne ne jot na ko al quwatul basariya kàtt nu mu mindeef min wari ci leer yi wa xeyriha yu dul denga denga waaw la al di qam qam la hadi ko ñal bi ci moom kaala nekk na tasbihu loolu ko sallallahu alayhi wasallam bi gaayati ma adraka ci doyam naa xam ne na ko al bashari min defi min an wari ci leer mu asam tu mo jant bi mu ne ba nga xamee ne jant bi mboolem lu bët kàtt nag bët mën a gis ci leer ak lu dul leer jant baa ci gën a kawe mboolem leer yi nga xam ne xam nañ ko xamuñ ko laal gis nañ ne leer yi yëg yëpp ne leer la jant baa ci gën a kawe moo tax mu niru la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci leer gi nga xam ne moo gën a kawe ci leer yi te moo jant waaye tekkuwut ne waaw yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa mel ni jant déedéet moo gën a foor jant waqad madaxa tàgg na sallallahu alayhi wa sallam mhm. moom bu séeru fii xasidati ci xasidaam Euh, wala boog waqat madaxa tàgg na sallallahu alayhi bi tàgg na ko hmm. ku ko tàgg ci xasidaam kaax ah. bu bun zohayru xaytu shabaho ba mu ko nirulee sallallahu alayhi wa sallam bil asadi ci gaynde hmm. fi haybati ci wegal wa shijaati ak jàmbaar woowu te moom maalumu ñu xam la hmm. xasida boobu ñëw xam nañ xam nañ ko mooy kaax bu muy jégal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko gaynde <coughs> ci jàmbaar ak wegeel waaye xam nga ne yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo gën a jàmbaar gaynde foofu moo ko gën nit daan na ko gis rek di lox mu di ko xoyofal na ko góor laa goo xam ni rek ak jigéen ju doon lekk seen ci jàpp fii ci màkk moomu jur pour wan na ko nit laa comme ñëpp rek waaw ndax wegal gi mam sallallahu alayhi wasallam, ay xay yaqulu kamp bu mu naan attaw daatu dem naa ba tegee mi nii sama ndeyjoor fi ka fi naxamaati ci tënk borom bugal yi xiiloo waxam ja al xiilu mooy wax ji ñu war a jàpp ñëw naa ba teg sama loxo ci tënk ki nga xam ndigal yeb ci loxom la ko yàlla def hmm. te lu wax rek moy wax jam lolou lañ wara topum hmm. kon kay laahu naazihun du ma xëccoon te wante mom du ma xëccoo ak moom hmm. mu ne kon kay yonent boobu du ma ku yalla mbugal yonent waa tax mu mbugal la yalla mom ci bopam lolou ñu lépp ñëpp woon nañ ko seetlu mbugalul kenn ngir bopam rek rek rek waye joxut kenn xewal ngir bopam rek ndax fu kenen yegut fa waaye ci martaba ba mbindeef xamee ci la commencé mbugal ci la commencé waaw xewale foofu la mbugal ak xewal xam sallallahu alayhi wa sallam ku yàlla mbugal rek da ngaa weddi yonent bi wala nga ba jàngaleem rek tax mu mbugal la waaye soo weddiwul yonent bi teggoo jàngaleem yàlla du la waaye ku yàlla xewalal rek mm-hmm. da nga topp yonent bi gëm ko mm-hmm. waaw wala nga topp njàngaleem mm-hmm. moo tax ci martaba boobu la mbugal ak xam ko yàlla di joxe waaye moom yàlla ca yàlla am ja moom mbugalul <coughs> tax ku yeboo weg mbindeef yi ñu xal ku ñëpp mbindeef yaa leen xalak foofu ñu tedd ñëpp mbindeef loolu Mm-hmm. léeg-léeg nga dégg ñu ne diw diw rek la mm-hmm. du tus mm-hmm. kon nag jaamu leen yàlla bu leen jaamu diw yàlla rek lañu war a jaamu waaye war na ñëw rek képp koo xam ne nii min defab yàlla la soppab yàlla yàlla takk na xare ngir noonu benn waliyu mu takk ci xare loo <coughs> ci déggee ku ko soppal benn mu takk la xarit rek daa wax de xarit xarit ak xare nag du benn xare moom musiba ci juddoo waaye xarit moom xewal la ko ci juddoo ci mbindeef yi xeeb ci la yàlla di cawee ci la yàlla di joxe ku ne boo wekk ñëpp rek li nga xamee ne boo wegee yonentu yëpp weddi benn yonentu yàqu nga mm. naka noonu ku fonk wali yëpp mm. weddi benn wali yu rek xam mm. nga yàlla problème xamoo nag ñenn ñi wëlli yàlla yi mm-hmm. xamoo ñu yàlla tànn kon fonkal ñëpp rek mm-hmm. mën a mucc xormaal leen mm-hmm. borom xel sax du def loolu la zaaka yonentu boobu aaya ah, bu moo gën a yegoo indi fa man is yu kallim mu ni jamono bu may wax bu muy wax ak man hmm. dégg nga wax la ñu ne may nekk naka yow kaabu hmm. man suubun ku ñu ñaaw lii masulun te ku ñuy laaj nga lu tax nga wax lii hmm. moo gën a wegu maanaam moo gën a raglu min xaadirin ci gaynde min li yusil usdi si jàmbaari gaynde yi maskunu dëkkuwaayam fi badni asara mooy xuru asara xiilun gott la xam ne doona wooy xees ko xiilun beneen gol gott wala gol mooy barab bu sëq bu ami garab gaynde foofu la daan dëkk nee na naa yonent bi rek ba muy wax ak man moom laa gën a ragal ci gaynde gaynde goo xam ni gaynde gu jàmbaar la dëkk ci xuuru ansara nga xam ne nii eh, xuur boobu boo bëggee xam mooy lan mooy garab yu sëq la te lëndëm waaye bala nga faa yegg da nga romb barab bu mel noonu xam nga ne kon foofu dana lëndëm lool diggante <clears throat> ñaari barab yi rek dafay raglu waxuma laa nga dem ci barab ba gën a sori nag gën a lëndëm ne ne yonent la laa gën a ragal ci jàkkaarloo gaynde googu lu tax ndax ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam bu la rayee sawara nga jëm waaye gaynde moom bu la rayee dara dee nga rek yàlla mën na laa dugal aljana ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam bu la meree yàlla mere na la waaye gaynde moom bu la meree tous mën naa am sax la yàlla gën a bëgg moo tax ragal ci bi borom xel moom la war a gën a def ci ragal gaynde sallallahu alayhi wa sallam mooy coobare yàlla ji nga xam ne ci la yàlla defee lu bëri su ma tamaada mu continué fi wasfi asali ci melal gaynde gi moom waaw kambu ne waxuma leen gaynde rek de xam nga gaynde rek jar naa ragal waaye gaynde gu ñàng laa leen wax ne leen moom moom laa gën ñeme ci yonent bi wala isal du dañ bi waadi ci xuram xaatiqatin borom confiance maanaam ku wóolu boppam du mos li dañ mukk mu taraxal basir di kuñ sànni waaw ngandaayam wa dir saani ak yéréem maa ko wóolun di kuñ lekk nit ko am confiance wóolu boppam saa yu jàkkaarloo génne googu dana sànni ngandaay suuf si ñu simmi yéréem lekk ko génne googu nag dem jàkkaarloo moo gënal fuuf jàkkaarloo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na dëgg tegalu dana yan umil hungir ngir gaynde si baaxul jaw yi ndog mentug jaw yi maanaam picc yi naaw ji xami sel dañuy yanu da mi di bay ngëbu ñu tek buñ gisee gaynde gi rek dañ nan tek duñ sab duñ def dara ndax ragal gi lek te kan ñu kaw wala du dox muk bi di ci malara la rajilu tanki yi gaynde gaynde la goo xam ne ñu mutu dox ci xurmam nekk gaynde googu manam jàkkaarloog moom moom gënal fofu jàkkaarloo yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam su ma tamaada mu continué nag fi wasfi asari ci melal gaynde mm. allazi gi nga xam ne kaana nekk na indoo fu moom sallallahu alayhi wa sallam mm. ay yonente boobu ay yobu di gën a weeku minu ci gaynde googu mm. mu continué nag ci xasida ba di melal ne yonente boobu sallallahu alayhi wa sallam moom la gën a ragal ci gaynde googu illa an qaala ba mu wax ne inna rasula naka yonente bi la sayfun jaasi la joo xam ne yustadaaw dinañ leerlu bii ci moom muhammadun jaas ju ñu daal la maslulun jaasi ju ñu rocc la min suyufillahi mu bokk si jaas yi nga xam ne yàllaa ko moom bu seet la yonent bi jaase la ju ñuy leerlu soo bëggee baax daal mu leeralal la nga xam yoonu jub waaye daal bu la yàlla naree nattu jaas jooju rek moom la yàlla caw kon jaas ji yàlla cawaatee di leeral la nit ñi mooy yonent bi jaase ju hind daal mooy jaas ju baax bu mel ni hind la jugee waaye nag du jaase sàmba du jaase demba jaase yàlla la du jaas ju nekk ci mbatit jaas ju ñu rocc la mhm. pare na nag liggéey bi duñ ko mos a dugalaat ci mbat ma ba bis penc jaas ak yonentu yaa ngi liggéey sallallahu alayhi wa sallam mhm. gannaaw liggéey ci ay mhm. <coughs> ku bëgg baax rek jaas ji leer lal la ku bëgg a bon rek jaas ji dagg sa dox gi benn yoon yàlla wax nañ ne inna woo naka moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sabahu inna woo naka kaabu shabahu niru na niru na yonent bi biraas ci gaynde maa kaw ni ànd ak nekk ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laa nisbata di rek askan baynoo di nekk diggante mu bayn asad rek diggante gaynde laa fi sijaati du ci jàmbaar wala fi laybati du ci wegel mm-hmm. yonentu moo gën a jàmbaar gaynde moo gën a wekk mm-hmm. wegel mm-hmm. ndax raglu gi gaynde am yonentu ko jox waaye jàmbaar gi gaynde am ci yonentu la ko jëlee illaa ida qul naa lu mooy ñu wax rek a tasbihu nirule lil ala ñeel ku gën a kawe bil adnaa ci ku gën a suufe saa yaxun lu dagal la en doom fa arab yi nirule lu gën a kawe ci lu gën a suufe na ci arab yi lañ def fii kenn mënu ko nirule ku toll ni moom Noor ak toujours rek lu ko gën a suufe nga koy niru leeg sallallahu alayhi wa sallam xawloo mm. waxam min ka tukkee si yow mm. Mm. mu diwun bi aji leeral yuridu dafa namu andoona moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam kaana nekk na wajhu karamam fi gaayati diyaa yi ci doyob leer yonentu karamam dafa leeroon leer gu jéggi doyoo hatta hakkat ba mu ne tey Aïchatu Aïcha radiyallahu anha yal na ko yàlla gërëm annaa ne moom Aïcha raat gis na al ibrata pousa fi leeli ci guddi gi hina saqata jamono ba mu rotee mi diyaa ci loxom bi nuuri wajji ci leeru kanamam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne yaa Aysatu pusa réer na ko mm-hmm. ci néegam mu lëndam mun koo gis mm-hmm. waaye yonentu dafa dugg rek mm-hmm. kanam nga leeral pusa ba yaa ni lu mas na mu nuuraaniyatu nuura leeram moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xawloo waxam jum ne usfirat wuññi na ñaanu ci moom laylatun guddi xarraa u du aji bu mooy am na isfaar wulli googu waaw moom si datu diyaayu mooy doy mooy tas leer gi jugee alwaaqi gi aji tabbi baaxna zalaami gannaaw lëndëm isfaar mooy lan mooy leer gu leer naññ ñëw gannaaw lëndëm loolay wuññi moom lañ tuddee ba set sax yaqul day wax subhaanahu tudd na ma sallam wa taala maa ngi gën ci guddi gi sax at bara dem dëddu na wa subhi maa ngi gën ci suba gi sax wuññi xul naa wax nañu moom si ditu diyaay mooy leer gu tat banda salaam yi gannaaw gi waaw yonent bi sallallahu alayhi waaw mooy leer gi nga xam ne nii lu lëndëm rek moo koy leeral waaw xaala wax na waju kana moom mm. sallallahu alayhi wasallam kaanoo dafa mel ni moo samsu jantalo si diyaay yi ci leeram su maar dafa topp mu tofal xale yi ci moom moom mm. maanaam aqaram beneen maanaa xaala mu ne surat wuññi na ñaanu ci kanam googu mm. leeral tun guddi xarra bi aji leer leena chia an war ndax mbir mu leer zuhuru feer gim feeñ gim feeñ fii xaayati zalaami su dee ak lëndëm woo te moom allay mooy guddi mm-hmm. ak mu akbaru mooy gën a màgg jamaaran ci taar mm-hmm. min zuhur ci feeñ gim feeñ fi nahaari ci bëccëg mm-hmm. lu leer bu feeñee guddi ci lay gën a rafet ci bu feeñee bëccëg ndax bëccëg dafa leer ni moom mbir safaanam moo koy wane moo tax yàlla defar lu mel ni safaanam léegi looloo tax xaala woon usra wuñu nañ am ci moom laylatun guddee xaraaw bi aji weex yaa ngi mas na mu bay daaw bi aji weex bi si nuuri si tatak leer wakkaane nekkoon alleylatu guddi gi mm-hmm. fi asliha ci cosaanam fii xaayati zalami ci dee ak lëndëm falama tana ba mu fenkeel waju ak këram këram gu tedd ga fiyaa ci moom mm-hmm. mooy këram yonent bi bi deyaay ci leeram mm-hmm. waa guddi gi <laughs> dafa lëndëmoon waaye ba yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam feeñee ak leeram kaana nekk na xarraaw di aji weex bi daal kër waji ci boobale këram aus fira ñu wuñ ñi an daal kër waji ci boobale këram ala këram gu tedd bi ñu wuñ ñu guddi googu hatta saarat bu mujj bay daa di aji weex bi ngir kàttan ak leer alladi gi nga xam ne baras da feeñ ne fiyaa ci moom su ma xaal toog mu war a de ban guddi la kanamu yonent bi leeral mm-hmm. mu ne laylatul mawlidi mm-hmm. mooy gudd ak juddu alladi gi nga xam ne kaana nekk na mm-hmm. li diini ñeel diine surur ak mbégte bi yow mii ci bisam juddu guddi googu mooy guddi leer guddi googu moo di guddi mbégte ak kontante sallallahu alayhi wa sallam ngi leeralee guddi googu keroog ba yonent bi juddoo guddi yëpp gox yëpp leer nañ rek laa wax de bi di wàcc ba ba mel ni boo yëkkatee sa loxo xaw koo laal mm-hmm. foo toll rek waaw di gis leer yi waaw Makka sax ñuy gis pare nekk Sham mm-hmm. ndax leer gim leer kanam kon kanam yonentu googu sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. yàlla wan na leen leer la goo xam ne waaw dañ na àddina yëpp rek wax de قولوهم ليلة المولد يقدك جدو نعم. يحتملوا دلن يحتملوا دلن جمتلو أنوني ومن باب عطف بيان مي بوكسي بنت عطف بيان نعم. عطف بيان مي ليلة ليلة لك جيت راك نعم. لول نيو نحو كخم وا دفو خون قدي قو ليلة بفر مي ليلة لك بن قدي مي ليلة المولد مي قدك جدو قوكو مي قدي قو ليلة جيرن تبوني هو مام قولو مي مي وخم جملة وسرد وني نيا نو تي كلام قوكو ليلة قدي غراو بيجي بيخ أتفت فنال يا تي مام بقولي تي وخم منك قدي laylatul mawlidi mooy guddi ak juddi bu <coughs> yaxtamilu dana jëmtalu annaa ne hmm. laylatul mawlidi gi jumlatun jumla la istinaafiya buñ sos waa looli it ñooñ naxoo xam maanaam dafa sos waxu boppam rek <laughs> ne guddi waaw juddu gi yonent bi juddu guddi googu hmm. waaw guddi googu guddi mbégte la ak de ثم قال موال نعم. ليلة المولد قدك جدو كان ودف من هم يقول لي وحل يكون نك اهتمامك سيدة وعلمك أكثر خم خم تي ليلة المولد قدك يولد في جدو التي جيجي قمنا ولد جورنك فياتهم صلى الله عليه وسلم بتلك ليلة تبوبي قدو قدك كان لنك li diinu islam yi ñeel diineel islam bi tilka laylati ci boobule guddi waaw sururun ak mbégte wa diyaaw naka kontaan wa zahu kontaan nag woo moom shiddatul inbisaati mooy tatak talalu fi sururi ci mbégte rek laa wax de waaw fay na surura naka mbégte woo haqiqa na ci dëgg-dëgg woo moom nuurun leer la yestahu dana jolli di fenkaalal xal bi ci xol waaw yujiru yujiru dana amal lil xal bi ñeel xol a surura mbégte wal fara ak bég wa isdihaar ak kontaante woo moom kontaante nag waaw zuhuru dalik zalika mooy feeñ ak loolu alal jawaar yi ci cër yi waa kontaan mooy mbégte gi feeñ ci cër yi bi satin nga commencé kebetu di waxantu aw tasfiqin wala tàccu aw shiddati harakatin wala yëngatu gu tat loolu mooy isdihaaw isdihaaw rek laa wax de isdihaaw kon bu seeru ne na nga jéem a yittewoo guddi gi yonent bi juddu nga xam ne ba ci am na si mbégte ak kontaante rek laa waxale wa tawaalat toftaloona bu sëral xawaati fi mbégte yi mm-hmm. xaacu ya am na li mbir tamit xad wali da jur nañu Moustapha Moustapha wax keroog ba yonent juddoo mm-hmm. ñu ngi di bégle mm-hmm. ne yonent bi kon xëy na nag ñu ndokkeel ko <coughs> jinne yi di xaacu di bëgg la juddug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xataa xërëm yi ñu ngay damm su leen laajee ñu ngay wax ne yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo judd xam ngeen ne kooku dund du simple ñëpp xam nañ ko ba ci mbëtt yi ñu ñu réer ci jinne ñoo ko xamut ak nit maanaamu maanaa ba andoona li am ba am tawaala toftaloona albashaayu mbégte yi alal naas ci nit ñi fii tilka leele ci boobule guddi bashar bégal na bi wilaadati ci juddu yonent bi keroog guddi googu guddi gaa ngi bégal nit ñi ci ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam juddu na ndaa àll yi nekkee penku ñu ngay dem xarfu ngir bégal waa xarfu ya nekkee xarfu ñu ngay dem penku ngir bégal waa penku lépp bégoon wa nu xilat tooxal nañ min daalika ci bégle yooyu kasirun lu bëri nettal nañ ci lu bëree bëri loo xam ne xajul ci waxtu yi rek laa wax de wa xikaayatu mulkil furs malikul furs nett rek buur ak fursu muy faares maalumatul ñu xam la moom buuru faaris keroog ba yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam juddoo xew-xew bu na ci moom leen na iwaan woon ndax tabaxam ba inaa ma màbb na minu ci moom arbaata asrata surfatan fukki waaw toj toj ak ñeent fala maas baabam xëyee mm-hmm. waraa mu gis mu gis toj toj yooyu takamara jàq fii xal bi ci xolam dartu mm-hmm. bi ci topp danañ wax tabax boobu nu mu dëgëree woon mm-hmm. ak nga xam ne ni caaxaan ko toj waaye dafa xeew rek gis ne tabax ba toj na fukki toj toj ak ñeent mu jaq ci xolam bi kama din ci njàqare azimin bi aji màgg waaye wakkate moomu nëbbu njàqare ji nag waxut ko kenn mm-hmm. maa ànd na iwaano ànd tabaxam boobu mm-hmm. kaane nekkoon na fi xaay tadafuqi tada tadaquqi ci doyab ak dëgër rek la ci na mu mm-hmm. maanaam dañ koo xereñoon xereñe gu dëgër fala maas baabam xëyee wajala sa mu toog bi mel ci ci jotaayam wajala sa mu toog ak diwaanu mbooloom ma maa waan ak moom fa jaamu di kal bari lu la mooy ndaw lañ yónni woon min asaabi naarihim si ñooñ safara sa rosement bu màgg ba alati bi nga xam ne yaa bu dunaa danañ ko jaamu la woo ñeel ndaw loolu yuxbiroonoo ñu di xibaar benn naara na safara utfiyaat fay ko bi xëy sababin waaw ci lu benn sabab rek laa wax de wala mu yàq a sàgganu ñaanaa ci xamu ko na xasa wàññeeku wut mm-hmm. xata bu haa matama mm-hmm. Kisra dafa xëy toog ak mbooloom mm-hmm. di leen nag toj te ji nga xam ne tabax bi toj na ko fekk ñoom Faris amoon nañ safara su rëy suñ doon jaamu dars bi dana laalaat safara soosu ah safara si am ay xamukat yu doy. bu ko defee ñun toogee rek ci la ndaw ñëw nekk ko ñooñ safara si ñoo ko yónni ne na wax Kisra ne ko safara si fay na te kenn sàgganul ci matt mi euh, wàññeeku waaye daal mm-hmm. kenn mënu koo taal dafa xëy rek fay ndeke yonentoo juddu sallallahu alayhi wa falamaa wax bi rek bañ ko xibaaree bi zaare ci loolu zaare doolee ku nekk ma doon njàqaram maa maa wu ànd ak la nga xam ne moom fii ma ngi ca min hamil iwaani si njàqareb tabax ba bañ ko waxee loolu rek njàqare yokku ànd ak tabax bi toj waaw loolu jàqaloo na ko ñu waxati ko lii mu gën a tiit fa xaala mu daal di wax moom kisra li ahli majlis yi ñeel ñoom jotaayam mu wax ñoom jotaay bi ne leen maa haza lii mooy lan moom fa xaala mu wax loolu ñeel ko al mu bisaanu attekat ba mubisaan woowu moom alqaadi mooy àttekat bi luxatim seen làng mubisaan mooy àttekat bu mag bi seen lang xaala mm-hmm. wax na moom àttekat bi la woo ñeel ko mm-hmm. ne wa waanaa man asla yàlla defaral laaw yàlla mun ko sa nguur ga raayatu gis naa fi hasil laylati ci bire guddi royen ab gént mayit raayatu gis naa ibalan ay gëlëm siyaaban yu mokkut yoo xam ne ni kenn mun leen omat taxuudu mag leen omat xëy ay fasin raaban yu raab ah xat-xataan dagg nañ daj la ta dexu daj la wante sara ñu tasaaroo fi bidaa daa ci réewi la mu bisan bi ne ko man gis naa gëlëm yu mokkut ay fas yéene laa ba nga leen wammat dugg mm-hmm. uh, daj la tasaaroo ceew mm-hmm. ah, gën a tiitati fa qaala daal di ko wax Kisra Kisra ne ko maa indaka mm-hmm. ana la nekk fa yow fii taawila ci firi gént googu yaa mubizaan yow àttekat bi loo ci xam <coughs> qaala mu ne ko araawa gis naa loolu xadasan muy xew-xew yaa tiina danañu dikkee min naa yeetal arab yi jógee ci côté arab yi rek dek yaakaar naa ne ñun ñooy dem ci arab yi rek waaw jëlee fab xew-xew andi ko mm-hmm. loolu la wax de mm-hmm. parce que dafa gis gëlëm yu mokkut mm-hmm. gëlëm yooyu ñu ngi xam mat ay fasien arab dégg nga fasien bi mooy xibaar yu jógee ci arab yi ñoom ñooy gëlëm yu mokkut yu tëy yi ñoom ñooy jël xibaar yooyu tasaare ko ci réew yi rek de te mooy dikk ak yonent bi moo dafa ne raayatu gis naa ay beneen gëlëm ci yu ma kut te xuudu ñu ngay xommat ñoom gëlëm yooyu xeelen fas yéraban yooyu raab bañ ko laajee luy xew-xew ba mu ne man gis naa ne xew-xew la boo xam ne dana ñu dikkal bu jugee ci ko eh, goxi arab rek de ah Kisra gën a jàqat fa baynama woo ba nga xamee ne moom kazaalika comme noonu la hmm. it si sansa rek war a daroon naari ci moom hmm. albaridu ndaw la hmm. bi ànd maa Buhayra ne ko ndoxam Buhayratu Saawa xad xaada ngis na Buhayratu Saawa seen ndox ma ngis na fi tey fi tilka ci boobu la guddi bilaa sababin ci lu benn sabab ah mu gën a jàqati su ma war topp mu daanu alay ci mu albari du ndaw la benn waa di samaawa ne ko xuuru samaawa faada bëbb na ndox faydan bëbb aziman bu màgg te ko def xuuru woowu ndox maa ngi bëbb di dugg ci nit ñi Buhayratu Saawa yiis gim yiis waaw dégg nga te seeni barab la woon ñoom waa di samaawa daal di bëbb ndox moom loolu wane na seen seen teraanga yëpp ak seen xërëm yi dana dana fay waaye leer ak yonentu yàlla salaasam dana bëbb foofu yëpp vraiment waxaa ba mu tàbbee fi aw am li ci bile mbir moom Kisra mënatul nëbbu nag baasa ci la yónnee la Abdul Masih bun bu xayla xaaf gi ñaari tomb abd abdul masih bun buqaya moom la yónnee wakaala nekkoon na bil xiira ma nga woon ci xiira baasa yónni na ilay jëm ci moom kisra kisra li ati yow pour mu dikkal ko li yuxbiro li yuxbira pour mu xibaar ko fi am ri ci mbiram maa taaw la ko dikkal mooy ne ci abdul masih fekk abdul masih mu ngi ci xiira ca côté Cham ne ko na ma dikkal daal di ma wax li xew faramaa jëla sa bu mu toogee moom abdul masih benn day ci kanam kisra قال لو تي لوخ كيسانك ما تريد لو بغ قال مو والله نيال كو في نفسي نيك نا سما بوب امر ميراج من بو ماغ قال له كيسانك انما اريد انك بغنا من الناس ني من يخبرني كما يخبار بلا امر تي مير الذي بي خامني في نفسي من سما بوب من غير ان اعلم من غير ان اعلم تي لول ماكاي خامل بذلك تي لول لي نيك في من بغمو كو خامني ماكاي واخ موي فيريل ديرل damaa bëgg koo xam ne moo may nettali ne ma lii ak lii ba pare firil ma ko su ma yox bi ni mu xibaar ma masa yuraadu la leen na mu minu ci loolu foo naa ko jamono jooju asiqu laay gën laay mën a hóoru bi xabar yi ci xibaaram bi mu wax Kisra nee na ki mu bëgg mooy koo xam ne moo koy nettali mbir mi ba pare wax ko li ci yàlla na mu su boobaa lay door a gëm abdul masih wax la woo ñel ko ne laa yakun du nekk elmu haada xam-xam xam lii ma ci am nijaay lii ñel ma yaskunu mu nga dëkk bi sharqi saami si ñaari penku saam am na sama nijaay boo xam ne ma nga ci penkub saam saam fa la dëkk mm. daal mën naa xam sa mbir mi <coughs> xaalam wax la ñel ko kisra kisra ne ko fasab demal yi jëm ci moom wasalu laaj ko mm-hmm. amma dégg nga avant su ko ci nga xam ne danaa fii ci moom mm-hmm. loola wa amma bansaka ci la Kisra yónni fii ci moom ma sa yuraat ak lan lañ bëgg minu ci moom Kisra na ko demal sa nijaay boobu nga laaj ko mm-hmm. mu xibaar la mbir mi ba pare wax la ci yàlla bëgg mm-hmm. fa qaama mu jug moom Abdul Masih min saati ci waxtu wa mm-hmm. saafara mu tukki lay jëm ci Kisra wa kaa lay jëm ci waaw Satiix mooy nijaayam boobu. Satiix la tudd wakaana nekk na bi sharqi saam si penkab saam. falamaa wasala ba mu yeggee day jëm ci moom. Hmm. wajadoo fekk na ko. bi aaxiri zamanin ci mujj ak jamono mi moom lii ci dundam. Hmm. fekk na ma ngay sukuraat. Hmm. di waaji dee. ah fa qaala mu wax loo ñu ko julo saa way toogaale mi. ne kalam naa wax nañoo ak moom fa la muy te kalam waxut. yaa noo ndax moom fii xamaraatil mawti mu si sukuraatu dee. musi la gëm dee ma ngay dee mm-hmm. moo tax wax nañu ak moom tontut abdul masih fan soda mu daal di sadd ay bayt mm-hmm. abdul masih abdul masih àndoo fa moom abdul masih daal di waay nag naasumun mm-hmm. am yasmaw ritriful yaman am baara xadlan ma bi chawalaanan asumun ndax dafa tëx am yasmaw wala mu ngi dégg ritriful yaman sangab yaman am baada wala deena قد لما واتشنا بيش موم شاول انا ني لفم دي نو دا فالكو لفم دي واتشي موم ولا بوك دا ولا موني ديغ ما ام نخ دي ساتير دا فتخم موني ديغم ولا دا دي يا كريم ال خطتي اعين من ومن اتاك شيخ الحي من ال شنن يا كريم ال خطتي يوم قمني يا كي تدي شي مثلا قمني ayet lot loo na man ka nga xam ne wa man ak ka nga xam ne maanaam yow mi nga xam ne masala mi lot loo ñëpp yaa ko mën a leeral loolu mooy yaay ki tedd ci masala moom de ataaka dikkal na la cheikhul xayi sëriñu ab gàdd min ali sanan bu jugee ci ñooñ sanan wow moo yaay min ali zibi bun xajan muy bokk ci ñooñ sibu bun xajan rasul xayril ajami yasri lil wasan hmm. ndawal rasul xayril ajami ndawal buurab ajam la hmm. mooy kisra hmm. kisra ko yónni yasri ma ngay rañaan lil wasani waaw ngir ajom laa yarhabu ragalut alwaxda tëkku wala rey ba zamani du caagen jéng ak jamono ragalut tëkku ragalut jéng ak soxla ba waaye wax na ko ko ak mooy kan ak li ko أنشدها أسدنا بيتي عند راسي فبوب سطيح با نعم. ففتعمو مو بسطيع سطيع عيني نعي بتمي ثم قال من عبد المسيح أتى إلى سطيح على جمل مشيح نعم. وقد أوفى على الدريح من عبد المسيح نعم. أتى ديكنا إلى سطيح جمت سطيح على جمل تجل مشين باجي غورغور غومنا داو وقد أوفى تفك سبنا مم سطيح على الدريح دي من يواجد بامرام baasaka yónni na la yow Abdul Masi maliku bani saasaan buura doomu saasaan li xamu di niiraan yi safara sa waru yel mubisaan yi ak gént mubisaan ba muy àttekat ba mhm. ah Abdul koy wax nag gént ga mhm. mhm. ak ki ko yónni te kenn waxut ko ko nag raa gis na iwalan ay gëlëm ci aban yu mokkut taqudu ñu ngay omat xayran ay fasin aban yu raab xat xataan dagg na mm-hmm. moom gëlëm googu daj la ta dexu daj la mm-hmm. wante saral mu tasaaroo fi bilaadi yaa ci réewam mm-hmm. abdul masih mu ne ko yow abdul masih ida kasurat bu bëree tilaawatu jàng alquran wa zahara mu feeñ saabu la hilaawati borom xet wa mooy borom dokk ba te mooy yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam dalaan yorob dokk fu mu jëm wa faada mu bëbbu waa di sama wa quuru sama wa waxaada mu nuis waa di boxiratu saawa quuru boxiratu saawa su loolu lépp xamee falay sa nekkul a shaamu shaam li sa tii ñeel sa tii shaaman di shaam yem li ku de <laughs> maanaam bu loolu amee yonentu boobu feeñ xamal ne sa tii moom tu dara ci shaam lépp yonentu boobu ko moom yem li ku dana falu minu ci faris mulukun ay buur yu góor wa malikaatun ak ay buur yu jigéen ala ci liimu toj toj yooyu maanaam danañ am fukki buur ak suñ jeexee nag xamal ne loolu nguur googu nguurub lislaam la ñoom jeexal nañ ci mm. wa kullu maa huwa atina atin mm. mu ne wa kullu maa huwa lépp loo xam ne woo moom atina aji dikk la mm. atina aji dikk la rek de luy ñëw daal dana ñëw kenn mënu ci dara mm-hmm. li war rek mm-hmm. mooy nangu ndogal mm-hmm. te jéem a dem bokk ci xéwal gu mag googu suma faare toog mu boobu ruuxu ruuxum mm. ba mu waxee loolu rek moom Abdul Masih mm. eh, moom mm. ba mu waxee wax yooyu ci la ruux gi mu dee. فلما جاء ديك عبد المسيح عبد المسيح الى كسرى جمت كسرى واخبروا مخباركم بما قالوا تلا ورنا ستي ون ستي فصدقوا مدقلكم وقالوا من هذا لي هو الذي مو قمنا في نفسي مو نيك سما بوب مملا مملا موم آه، لا ياكارون ثم خفف مو دال لي هيف الالم من جاقر الى نفسي سي ما واخنا فكي بورن ak فلو dañ تان جاقر tax وقالوا من ذات waxaala بفلو من ناس tamalaka arbaatu ashara marikan fukki buur ak ñeent xasaaral mujj na nag umuran di ay mbir ak qadri wa miqdaari al azim